بما بي boo ko amee la nga foog ni boo ko defee muy teraangaam di tëdd nga am ngay def mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen nuyu ci seeni cër ak ci seen daraja di am mbégte mu rëy di dalal gan yu tedd yi nga xam ni ñoo ñëw ci seen kër gan yu tedd yu màgg yu ñëw ci weer wu màgg jóge ci béréb bu màgg ci kilifa gu màgg ñëw fii ci seen kër ñu leen di séentu booba ba tey di tàkkamtiku seen jëm yu sell yi ngir daral leen ci seen kër sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes yabal rakkam taalibeem soppeem boole kook njaboot gi ni ko ñii fii ñëw seen kër la ñëw waaye te toogal déglul ma leen ñu dalal la yow mi fi dëkk ndax buñ la dalalee seen bopp lan dalal sëñ Habib mi toog bi nga xam ne bu délégation bi sëriñ bi yabalee Touba te sëñ Sidi Ahmed si yàlla na yàlla dëgëral ko te sàmm ko bu fa àggee ba nuyoo magam kilifaam sëriñam sëñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yal na yàlla wéral ko te sàmm ko sëñ Habib mii la jox kàddu mu yëkkati boole ko kii nga xam ne mooy Pape Youssoufa Diop mi nga xam ni wuy juram Baye Moustapha Diop mu maam asetu moom Cheikh Sidi Hadj moomu nag la maam Cheikh Sidi Hadj Malick ca njàngaleem mu rëy ma ca décentralisation ba mu def mu yoroon day jël doomam teg ca ñu dem fa mu leen yabal ñu dem fa ñu xam ne moom yabal na maam Sidi Hadj Malick yabal na boppam moom mii moom lañ tudde góor gi Youssoufa jóob mi nga xam ne maam Seydi Hadji moom la dénkoon jagsaaw sëriñ Bassirou na leen li ngeen di wane ci màggalu tubaa moog la ngeen di wane ji Tiwaawoon rek ñooyam kon na ñëpp jóg ànd ak ñoom ndax kër gi du yaari kër genn kër rek la kon délégation bii moo bàyyi ko ci Cheikh Mahamadoul Bassir ci ndiga ci ndigalam mu teg ko ci loxol Serigne Abdoul Ahad Gaynde Fatma mu ànd ak seexu naa ngir ñu ñëw jokkool ko bokk gi waaye feddalil ko wëlëre wi waaye nag ziareel ko ci bis bi kaddu yi nga xam ne moo ci war a topp sëriñ Abo Bousso Talxati mii moo ko yëkkati incha allahu rabbi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi yëkkati ay kàddu yu nuyoo ak i siyaar yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sëriñ Abdoul Ahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mu jële ko ci kilifaam sëriñ Bachiru moom sëriñ Abdoul Khadir muy kàddu yu nuyoo yu tedd yu màgg jëmale ko ci njabootuk Cheikh Sidil Hadji Malick te ka nekk ca bopp ba di sëriñ Mbaye Sy Mansour mi nga xam ne mooy xalifa général bu mboolem tijaan yi yëpp mi ngi leen di nuyu ci kàddoom mi ngi leen di ziyaara mu ngi leen di ndokkeel ci bis bu màgg bi nga xam ne moom lañu dëgmal muy guddik ganeek jamono yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kàddu yi nag kàdduy cant la ak kàdduy dox si ak bokk ndax sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Xaadir délégation bi sëriñ Fàllu lim lépp dafay feddali rek li nga xam ne mag ñi yàgg nañ koo jëmbat yàgg koo dundal moom lay ñëw di ko di ko dundal si ci barab bu tedd bii rawatina ci bis yu tedd yi rawatina ci bis bi nga xam ne moom la jub kon mi ngi jël nuyoo yooyu jaarale ko ci Serigne Aboubacar Sy mi nga xam ne mooy xalifa général mu jaarale ko ci mboolem alxadratu tijaaniya yooyu bépp alxadral malikiya nuyoo boobu yegg ci ñoom. nuyoo bi nag niñ ko waxee dafa làmboo rek ak cant waaye làmboo it kàddu ak dox si ak mbokk goo xam ne dox na diggante alxadral malikiya waaye dox na ci diggante li nga xam ne mooy attariqal muridiya muy lu yàgg loo xam ne sëriñ Bachirou moom sëriñ Abdul Xaadir loolu lay firndeel si fii délégation bi loolu lay jëmmal si ginnaaw mbokk askan gi nga xam ne yàllaa leen sant ñu sàmm ko yàllaa sant it ñu dox ak bokk loola bokk na ci jataay bi mooy dox ak bokk ci la bokk te loolu santaane bi yàlla la bu mu santaane boo xam ne dafa bëgg ñuy dox ak bokk te ku ne xam ne diggante ñaari maam yu baax yooyu muy Cheikhoul Khadim ak Seydil Hadji Malick am na ay relation ak bokk gu dox seen diggante mooy al uquwa nasabiya bu dox seen diggante ñoom ñaar loola sàmm ko depuis ca mag ña lu war la te ñoom doon nañ ko sàmm relation boobu nga xam ne moom lay ñëw di ko feddali si mooy relation bi doxoon diggante Serigne Touba ak Seydil Hadji Malick te ku ne xam ne ne relation bu ginnaaw ak bokk gi dañoo bokkaat neen muy pas-pas bi leen yàlla boole ñu bokk benn tool bu ñu doon liggéeyal muy toolu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam féete ca Touba di ca bay kii féete ci Tiwaawoon di ci bay teewut nag yàlla boole leen ak bokk deret goo xam ne kenn ku nekk doon na ko sàmm waaye kenn ku nekk xam ne fa nga nekk jëwrin nga fa te yaa ngay taxawe la nga xam ne moo war ca li nga xam ne mooy bay ci toolu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax seen relation wax nañ ko fi waxati ko fi lu yàgg-yàgg la relation la boo xam ne yàgg nañ ko joxalante ñoom ñaari jëmm yu baax yooyu wax nañ ko fi ay yoon téere boobu mu ko yónnee woon te jaarale woon ko ci maam Rawxaan Mbay maam Rawxaan Ngom euh, ku ne xam na ko ba boole ko hadiyatun mujibu haj silaabu mahabbatun yaa ayyuhal xubaabu wax ko ci lam koy wax ne ko addiyee la joo xam ne dama la koo jox te lenn rek laa ci fas mooy ak cofeel gu dox sama diggante ak ñoom ñaar nga xam ne cofeel googu cofeel gu màgg lay doon goo xam ne yàlla rek a tax mu lalu yonent bi alayhi salaatu salaam rek mooy tax mu sosu loolu it ba ko sëñ bi tontee dana ko sant nañ bu baax yàlla la yàlla fay ci jëf ju rafet ji waaye relation boobu mun te ñàkk bañ a am ndax benn tool ñoo ko bokk te kenn la ñuy liggéeyal mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam loola mooy relation bi doxoon seen diggante noonu it mu doxe woon seen diggante noonu la doxe woon ci mag ñëpp ku ne xam na ne Serigne Touba radiyallaahu anhu daana yabal ay ndaw ñuy ñëw ci njabootu Seydil Hadj Malick waaye Seydil Hadj Malick daana yabal ak njabootam ñuy ñëw ci waa kër Serigne Touba radiyallaahu anhu muy relation bu yàgg ba ci kenn rek sëñ bu so gis nga bim nekkoon na fii ci seen wet kër Serif yàgg na fi lool xaritoo woon ak lool Seydil Hadj Malick yabaloon na fi ñaari doomam kenn ka di Serigne Mourou ak sëriñ Baara Ñaŋ mu mag ma ñëw ne leen ngeen dem nuyu li ma seen baay bu baax boobu di Seydil Hadji Malick bañ ñëwee xam nañ bayit yañ indaale ak bayit ya leen Seydil Hadji Malick tontu loola relation bu màgg màgg la waaye ginnaaw bi it relation boobu dafa continuer tàmbalee ko ci njabootug Seydil Hadji Malick di ñëw Touba di bàggante Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh baax yi mi nga xam ne bokkee naa ak Touba ci ñaari wàll yëpp ku ne xam na ne moom i relation boobu doon na ko sàmm ci ngan ga ci Cheikh Mamadou Moustapha ak ngan ga ci ki nga xam ne moom mooy eh, Serigne Cheikh Gaynde Fatma ak ba ci Serigne Abdou Khadir marsiyaam boobu mu ko defoon ba ci marsiyaam Serigne ab Lahad loola kon relation bu yàgg-yàgg la boo xam ne xam nañ ne li leen boole ñoom mooy du tarixa rek waaye dafa am ku ñu xool mu yonente bi alayhi salaam te moom la ñu liggéeyal te loolu boo demee ci kifaayatu raaxibiin bi nga xam ne Sidil Hadji Malick taalif na ko wax na fa luy wane ne ñoom ñoo bokk benn jubluwaay tey amul kenn koo xam ne dana dana dana dana dana sóobu jaar ci yoon boobu ba mu war a jaar di am lenn loo xam dina ko xeebat ci mbokkum jullitam wala dara ndax innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum te Sëñ Tuubaa loolu waxoon def noonu al muminuuna ixwatun wal muminaat lii aqawaatun wa xayaati xasanaat jullit ñëpp ay mbokkam lañ loolu it la jàppoon fa turuxu kulluha ila rahmaani musilatun muslikatun yaajaani loolu kon boo ko xoolee relation bu yàgg la boo xam ne lépp ak bokk ko lal waaye lépp it bokk pas-pas moo ko lal jàpp nañ ne kon ba Bassirou bu yebalee délégation bu toll nii dafa jàpp nañ njaboot gi ñoo ñëwaat fekk si njaboot gi ndax benn lañ te ku ne xam ne ne màggal gi ñu jàll gis nañ njabootu Seydou Hadji Malick ni ñu bàyyi ni ñu bàyyee ñoom it seen délégation bu rëy bu am solo ñëw ànd ak ñoom ba yëf yi jeex kon dañu jàpp ne genn njaboot gi la genn maam ji la te ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk lenn luñ doon woote te loolu mooy dëggal rek fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yaxida sawaun intama ilil jilaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi loola mooy cosaanu delegation bi nga xam ne moom la Serigne Bassirou yabal kon Serigne Bassirou ci kàddoom ci kàddu Serigne Abdou Lahad ngi leen di nuyu mu ngi leen di ndokkeel ci bis bi di leen ci ñaanalit sunu borom defal leen ci ndam lu kawe lu ngeen ci daan am te ku ne xam na ne bis la boo bis la boo xam ne ñëpp ko bokk bisu bi ñëpp la waaye nag Seydi Hadji Malick am na ci jagle gu rëy goo xam ne yàlla defal na ko ci ci bis bi te loola xam na ko xam ngeen ko teyit loolu yéen a ngi koy dundal dund gu am solo kon loolu mu ngi leen ci sant di leen ci gërëm xëy na kàddu yi du gudd lool lool waaye kàddu yi kàddu yi cant la ak kàddu yi ngërëm ci relation boo xam ne yàgg ngeen koo dox digganteem ak Serigne Bassirou Abdou Khadir tàmbalee ko ci bis bii ñu génn muy màggal Tuubaa waaye bis bi nga xam ne moo ko moomal boppam muy bisub Sëriñ Abdou Khadir gis nañ njabootu Seydi Hadji Malick taxawaay bi ñu ci am ak yitte ji koy jox ak pas-pas bi ñu koy jox ak féetewoo gi nga xam ne féetewoo nañ ko ko mu nekk ay wëllëre mu bari fi ay wëllëre moo waral at mu jot mu sàkk délégation bi ànd ak njaboot gi ñëw ànd ak yéen fas yéene bokk ak yéen mbégte mi waaye fas yéene bokk ak yéen màggal gi nga xam ne yéen a koy màggal guddi gudd guddi ganek jamono ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon kàddu yi jërul muy gudd lool lool kàddu yi dox mbokk rek la kàddu yi bokk pas-pas rek la waaye kàddu yi gën a boole la te xam ne ñoom yàgg nañ cee joxe ay misaal ak i ak ay yu leer nañ ak exemple yu leer ci ne ñoom ña nga fañ war a nekk ñi ngi doqalante ñi ngi yónnante ñi ngi demlante taalibe yi ci aju ci ñaari kër yëpp it lii rek lañu doon séentu ci ñoom te lii rek it lañ war a teg seen tàng mooy ne relation bi yàgg naa rafet yàgg naa dox kenn ku nekk di ko doxal loolu lañ ñaan yàlla sunu borom mu gën koo dolli gën koo yokku ñaanit ñu yàgg fee ñëw ay ati ati at te sunu borom yàggal fii ki nga xam ne mooy xalifa bi sunu borom sàmm ko aar ko ba yéeneem ci lislaam ak ci yoon wi ak ci jumaa ju mag yi nga xam ne moom la naalal yoon wi naalal ko lislaam te muy lu am solo di ndamul lislaam sunu borom yeggalee lépp ci loxoom te àndu ko ak moom sant na bu baax gërëm na leen wasalaamaaleykum wa nee na da ciy dolli ab yóbbante bu ndaw rek balaa booba nag dana jéggulu ndax daa toog nag ci diggante ñaari diplomate nee na loolu nag lu doy waar dong daara bu toog ci diggante ñaari diplomate nee na moo tax jotaay bi xaw a xat ci moom <laughs> nee na waaye loolu day wane rek. taxawaayub mag ñi taxawaayub diine it ci biir réewum Sénégal ndax ñoom yéen ñaar ñii ni ngeen toll ci réew mi ak li ngeen ŋànk ci diina yi ci Sénégal waaye sun boroom dimbale leen ngeen dem ba taxawal senegaal ci ay niwo yu kawe loolu ak sant yàlla rek la nee na yóbbante bi nag weesuwut sa njabootuk bopp gi ñëw Touba te sëñ Habib toog ne ak sëñ Youssou ak sëñ Sidi Ahmed mi fi newut ak ñi ne àndal ñëpp ñu fay teew nag teewaay bu rafet boo xam ne bu ñu dikkee ba ci sa kanam ñu bëgg la koo jottali nga àggaleel ñu ko sëriñ bi sëriñ Habib Meyit mu xam ne kàddu yam fa yëkkati nga yëg na nag lu neex taalibey murit yëpp la woon ñëpp di safoo sa kàddu ya ndax lépp rek da nga koo teg ci ndigal waaye nag ak loo xam ne day gën a dëgëral yaari kër yi te dafay ñëw ñeenti at ci ginnaaw moom sëriñ bi fekk fii sëñ Babacar mu ne ko na xam ne day diine ji ci biir réew mi lu ëpp quatre-vingt pour cent yi sa ñaari maam yi ñoo ko moom kon bu ñu àndee rek lépp baax ànd boobu nag am na ñu mu neexut nag loolu moo tax tànk yi di juweeloo waxtu wu ne kon loolu daal moo doon yóbbante bi sëriñ sëñ Yuusu mii taxawaayam rafet na lool ak sëñ Sidi Ahmed mi fi nekkut. ñi ngi sant di gërëm kàddu yooyu rek lañ ci bëggoon a teg délégation bii di ñëw Touba ci màggal gi sëñ Abo junj na ko waaye dama cee muntoon a ñàkk a dolli nag loolu yi ndax bu ñu fa teewee nag teewaay bu rafet bu ñëwee ci seen kilifa war nañ koo xamal ne ña nga fa yabal la doon mat nañ ko sëkk. kon ñu ngi sant di la gërëm. yi fi teew jóge ca dëkk bu tedd ba jóge ca kër gu sell ga kër Maam Borom ñëw fi ci ndigalal suñu wayjur sëriñ Mouhamadul Bachir Abdoul Khader suñu mag walla suñu rak suñu kilifa de Serigne Abdoul Ahad Gaynde Fatma jiite ko suñu kilifa Serigne Cheikh Ahmed Tijani bu suñu maam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Ad Dabbar mi nga xam ni moo fi toog jataayu Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour Al Khalifa mu ni gannaaw bu. musloo ci seytaane yal na yàlla musal ci pexeem teg ci bàkk yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di wax asalaamualeykum wala wa aleykum salaamu wa rahmatullahi wa barakaatu. rek mënoon nañu bàyyi waxtaan wax yëpp mbarke fa tabaarakallah ah, nee na bu ñu jàngoon fatiha teg ci benn peru salatu ala nabi rekk daan doy na ndax kàddu yu rafet yu tedd yi nga xamante ni bii jiital nañ ko fi mu ne nii ci jataay bi waaye nag comme que mag yi dañuy wax ne jàmm du ëpp lu baax du doy mu ni comme mag ñi nag dañuy faral di wax ni jàmm du ëpp lu baax it du doy fa mu jëm moo taxit ñu fas yéene ci sof ay kàddu yu néew <coughs> nee na wa xalifatina wa cheikhina al cheikh Aboubacar maa ngi yëkkati mu ni ci ndigalu suñu kilifa bi Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour mi nga xam ni moo ko fi yabal mi ngi yëkkati ay kàddu yu nuyoo ak kadduy ziyaara di leen dalal ci seen kër di ko jëme nag ci seen jëmm yu tedd yi fa tabaarakallah ahsanal xaaliqiin ne kenn te kenn ku nekk ci yéen bu nagu bëtam tegoo ci wew du gis ci yow lu dul sa maam Cheikhul Xadim radiyallahu taala an ak njabootam gu tedd nag ak njabootam gu tedd gi it ñëpp te ñun ñëpp ñu ngi ci biir njaboot googu kon nag liñ ci wax mooy am seenu pay amuñu ko lu ñu wóor la waaye yàlla mi ko am yàlla nañu yàlla wuutu ci defal leen ko nee na kon sëriñ bi nee na mi ngi nuyoo ngën ji nuyoo mi ngi ziyaara te ba gën a jot nee na nee na tànk yi tànk yu réeti na ci moom ndax du tànk du ñu ni guleet ci tànk ndax tànk yi tànki bokk la tànki cofeel la nee na bu sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di wax ni luxmatul imaan aqwa aqwa min luxmati dam ñun nag yàlla dogal na yooyu yëpp duñ ci tànn benn ba ca des ñaari yëpp la yàlla dogal moo mu dox ci diggante ñaari kër yi te muy nag loxma bu da bu barkeel lool nee na te tamit da ngeen ñuy dimbaliwaat rek fu ngeen toll ñuy dimbaliwaat rek fu ngeen toll ñuy nafaraat laaya ja ñuy nafaraat laaya ja wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arxama inna allaha kaana alaykum raqiba wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arxama inna allaha kaana aleykum raqiba nee na bu ko defee tànk yi dafa ñuy fàttali loolu fu ñu toll ngeen ñuy ñaax fu ngeen toll ci doxuk bokk ak di ak mbaax waaw xanaa di continuer di ñu ñaaxaat rek ci doxuk bokk ak ak mbaax lépp nag di yiw lépp di mbaax yàlla boole ñu ko nee na fi ñu ko yàlla boolee nag ñu war di ci sant yàlla fu ñu toll bi guddi ak bëccëg suba ak ngoon fi jamono ju mu mën a doon nee na ndaxte suñu ñaari maamu leer yooyu le yàlla yàlla nañ yàlla nañ leen yàlla fayal yàlla na yàlla fayal leen lislaam waaye fayal leen bokk ak jege ñaale gi yàlla yàlla doxale suñuy diggante fayal ko humanité yëpp nag mboolem mbindaafoon yi nee na muy ca pay ga gën a gën a yiw xay lu gën la nga xamante ni bi yàlla moom la fayee jaamu yàllaam yu baax yi jaamam yu baax yi tey ñun day rafet nañ njortu ni ni incha allahu taala yàlla dina leen faye noonu te payoor googa kat kanam la jëm te lii ñu gis nii lii ñuy dund nii màndarga la ca loola. nee na 18 safar bi nga xamante bu barkeel bii ñu génn ci fan yi rek te lépp di ay yiw ak di ay leer yu yàlla di baaxe jaamu yàlla yi nee na nga xam ne suñu maamu leer ju baax jooju moo ko kaññ ci boroomam sonne ko ba yàlla defal ko ko mu mu mu mu ñëw séddewu ko ak jaamu yàlla yi nee na yooyu yëpp ay tegtal la bu fekkee nag am na lu muy tegtale loolu nee na la muy tegtale la la ca jiitu fa muy tàmbalee mooy nga xam ni ki yàlla jaarale yiwu tol nii ci loxoom ma ngi ànd ak ngërëmal yàlla nee na nga te ngërëm loolu nag ngërëm lu dappetoo la goo xamante ni du dog mukk nee na ci baaxu yàlla subhaanahu wa taala ñu jaarale ko ci sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni gannaaw yàlla lépp mooma yàlla nañ yàlla fayal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sëriñ bi nee na nag tànk yooyu rëy nañ ci ñoom rëy na ci moom nee kon nag na ngeen xam ni nee na jàngalu leen ko waxu leen ko fàttali leen fi ne rek moo di ngeen xam ni rek seen kër ngeen ñëw nag ñoom ñaari kilifa yu tedd yi ngeen joxoon kàddu ñoom ñëpp ku mu ci ñoom rek feddali na loolu nga xam ni kon sëriñ bi da leen fee toogal rek te loola mi ngi ko mi ngi koy jëlee ci biir xolam ci la koy jëlee de te yàlla nag moo moom la def seede ci wax jooje kon nag li muy wax li muy ñaan yàlla mooy yàlla leen yàlla fay yiw nee na kenn ku ci nekk ci yéen ci ëzal jeek jox na la sa place ci kër gi ndax kër gi kat këru yàlla këru yàlla ngeen jóge te dafa nekk ni ni leeru yàlla nag nee na benn entité boo xamante ni bi indivisible kenn mënu ko taqale nee day day jokk rek nee na comme ni ko sang bu tedd bi waxe nee na daan na wax ni moom sallallahu alayhi wa sallam nee watanul mumini xaysu tamtaddu aqidatuhu fii imtidaad la boo xamante ni bii ay leer rekk ñoo ko ñoo ko làmb fa ngeen jóge foofu it imtidaad la boo xam ni ma nga fees dell la i leer moom it nee na mooy li nga wax léegi ni sa baay bu tedd bii ni nga baal ma ci waxi nee na sa wayjur wu tedd wi Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour lan la fi waxoon ne kat sa ñaari maamu leer yu tedd yooyu le la mu wax yëkkati ko du par parloo la wax moo ko ko tax a wax ndax ñoom duñu par parloo par parloo yiwul te baaxul ndax nit moom am mën naa am péete waaye par parloo yàlla nañ ci yàlla musal amin nee mu ni sa ñaari maami leer yooyu njaboot gi fi nekk fii ñu tëddee réew mi ñuy wax senegal ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu borom bi subhaanahu wa képp ku leen bëgg a seppi ci lim bu barkeel bi nga xam ni yàlla dogal ak mbooloo mu barkeel mu nga xam ne yàlla def na ko ci seen gannaaw ñoom ñaar. ba nga xam Sénégal ñëpp ce que ca kaw. nee na doxal na ba nga xam ni fépp fu ñu tuddee Sénégal rek ñëpp foto su ni est-ce ah defe naa de. nee na defe na ni day. du sax defe naa lu am la. nee na defewul de lu am lay wax. waaye nag waxin rek. waaye waxin rek. dafa am solo. dafa am solo. ndax dafa ay ndax léegi dafa bari ay tëriñ. ndax rajman bi ndax na rajman bil xayb nee dafa bari léegi ne dafa bari nag waaye waaye seen code part waaye seen code part ba leen yàlla jagle jagleel ci xolu jaam yàlla yi buñ ko rocci woon wal iyaadu billah yàlla buñ ko yàlla nattoo te nee na incha allah loolu du fi rocceeku mukk. ah kon de ne dootul nee na bu ma nee na bu man man la wax ni Sénégal doot day far de. waaye dina lompoñ ba dootul. waaye Sénégal dina lompoñu wopp ba dootul mën a jógati. loolu nee na loolu nag lu yàlla dogal la moom. kon nee na. nee na kon nag nee na. ñëw ngeen seen ñëw ngeen ci seen kër. ñëwati ngeen ci seen kër. ñëwati ngeen seen kër. nee na ba nga xam ne li muy wax rek. nee na ba nga xamante ni li muy wax rek. di ko feddali di ko feddali. mooy kenn ku nekk ci yéen neen li mu li mu waxoon ni mu ni mu waxe woon léegi rek nee na ca azal yàlla dogal na ay seen cër fii ci kër seen maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu mu mu mu mel ni cër ba nga xamante ne yaa am ngeen ko ca kër gi ngeen jógee muy kër maam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yaru xorma. mu di la xorma. respect muy respe cër wiiw muy cër wiiw. mbaax mbaax. yëg yëkkati yëkkati. sopp tatagal tatagal teral. loolu ngeen yelloo. nee na loolu kat moom ngeen yelloo. moo tax bu doon sagoom. moo tax bu doon sagoom. dafay wàcc dafay moom sëriñ bi. bu doon sagoom bu doon sagoom. fii ngeen koy fekk. du xaar bañ koy annoncé naan mi ngi ñëw. Hmm. nee day wàcc day ngeen koy fekk fii mu leen teeru. de ndax nag moo leen fi nekkal nag. <laughs> nee na ab inspecteur bu waree ñëw ci ñamu war a inspecté. rawatina nee na bu dee <laughs> inspec inspection générale d' nee na ba dem ca directeur ba wala ministre ba. duñu xaar ba kii wax leen ko ndax su ñëwee dama xaar. nee na du wax ni bu bu ñëwee dama xaar kat maa ngi ñëw. waaye bu annoncé ni dina ñëw telle heure. bu ñu annoncé ni dina ñëw telle heure. wala tel jour wala tel jour. jour ba heure ba. jour ba heure ba. avant loolu moom ma nga ca suuf. di préparer <laughs> dossier yi. alhamdulilah nag bi ngeen <laughs> yéen. ba ngeen xamee ni. yàlla ak seen jaan. baax seen ñaan yu seen ñaan yu baax. ak euh, ñaanu cheikh yi wa seydi wa axina wa xabiba cheikh Mouhamed Mountakha. nee na ak ñaanu magam bi nga xamante ni bii di di sangam di kilifaam. di cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké. yàlla na ko yàlla sàmm te du te wa te ko. te yàlla saxal ak nekkam. boole ko nag ak bokkam yëpp. dugal ci doom dugal ci sët ay sëtam dugal ci mbooleem ay jege yàlla ak mbooleem ay soppeem ak ña mbooleem ay taalibeem nag ak ñi nga xamante ni bi ñu nga ngoy ñu ngi ak ngoy cay cay buumi say suñu maam ak suñu ci suñu di suñu sëriñ maam cheikhul xadim radiallahu taala anhu ak mbooleem ay taalibeem nag ñi ko yaakaar nee na kon nag yàlla na ko yàlla sàmm. moom sang nee na ñaanam moom sangu bu tedd boobale. xam nañ ni xam nañ ni guddi ak bëccëg. allahumma al ak ñaanam allahumma du dakk du dakk mukk. mu koy jëmale. mu koy jëmale. ci mbokkam mii ci doomu baayam bii. sopp ko lool nag. wekk ko lool. fonk ko lool. ndax loolu nag mooy ndono li. yal na leen yàlla boole sàmmal. seen lépp ci yiw la tabaarakallah seen lépp mbaax la allahuma nee na yàlla bu làmmiñam lor yal na yàlla laf cet nee na li jëm nag ci suñu rakk suñu soppee di soppee ñëpp di sëriñ bu tedd di sëriñ bu baax nee na yàlla bu làmmiñam nekk cat ci moom nee na li xale yi di faral di wax naan diw borom mbaax la cheikh Mouhamadul Bachir cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul Qadir nee na sëriñ la bu mat sëkk sëriñ bu ragal yàlla nee na bu sàmm fa tabaarakallahu bu ragal yàlla nee na ku bàyyi xel yàlla ci lépp di ku tedd nag di doon di bon di borom itte ju kawe nag kon nag mi ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dolli. yéen nit ñi nga xamante ni bii ñoom moom moom ngeen si toogal yàlla leen yàlla boole loolu muy tedd nga ak ak ak yëkkatiku ci yàlla ba fu ngeen toll. voilà nee na mi ngi koy gërëm bu baax a baax. magam soppeem nag Seydil xalifa doomu baayam gërëmatina nee na gërëmatina bégatina ñaanatina waaye nag waaye nee na lu mu ñaan ñaan ñaan lu mu bég bég bég lu mu gërëm gërëm gërëm lu mu gërëm gërëm gërëm gërëm daf koy xeeb ndax njekk gi kat dafa dafa dafa rafet daf ko dafa rafet dafa rëy ci moom fa tabaarakallah te njekk gi kat weesuwul yëg njëkk ak sopp te cofeel nag dafa rëy de moo tax seen maam Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu daan faral di wax ni ala xablal mawaddati jaddidiiha fa fi tajdiidi naxyaa kulla xiini tànk yi tànk yi looloo ko waral nee na suñu moo tax seen rakk ju tedd jooju di Serigne Cheikh na Serigne seen Mouhamadul Bachir Abdoul Qadir di ku yàlla baaxal moog magam yi ak rakkam yi ak doomi magam yi ak ak bokkam yi ak taalibeem yi ak soppe yi ndax maam borom Touba radiyallahu anhu radiyallahu taala anhu borom bi moo ko defal ak xabul mooy xabul boo xam ni nag ñépp a koy ñaan nee na alqabulu wa rida min allahi subhanahu wa taala rida allahi wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu mooy ngërëm li yam li làmb lépp na ba tax na mbax ga mbaax ga ak yéwén ga làmb na ñooñ kaw làmb ñooñ suuf yàlla lay soob mu defal ko lool mu defal loolu jàmm bu ko soob bu ko defee Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na yàlla fayati ko yiw yàlla yàlla bu yàlla dañ di wàcc ay xéewal ay nafaxaat ay barakaat ay xayraat ay altaaf ak ridaahul akbar di ko ko defal fu mu toll mook magam yu tedd yi ak rakkam yu tedd yi ak njabootam gu tedd gi te yéen ñi ñun ñëpp yu ngi ci biir kon ko sëriñ bi nee na daal ngeen jotalool ko loolu ak ngërëmam ngërëmam loo xam ni mbégam goo xam ni lottu na ci génne lépp la mu dëxañ ci xolam fi toowoon bii fi ba déwén di ko wax loola du jeex ba tax na kon daf koy dénk borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni dara ump ko moom yàlla mu def ngërëm loolu moom gërëm borom bi mu jël ngërëmal sëriñ bi ak ngërëmal njaboot gi yëpp ñun ñii ñu ngi ca biir dugal ko ci biir ci yàlla jël ko dugal ko ci biir ngërëmam moom subhaanahu wa taala ca subhaanahu wa taala defal ko ko defal leen ko defal leen defal ko ñun ñëpp mu di jàmm ju yokk mucc gu yokku sutura bu sëmbartalu ci àdduna ak laaxira bilaa tafsili na nekk rek loo xam daal waaw nee na mu ne na nekk rek loo xam ni mbalaa nu mbégte borom bi la boo ak i ñeewante boo xam ni day sëmbërtalu ba faw rek yal na ko yàlla def ci barke maamam Cheikh Cheikh Khadim ak barke mbokkam mu tedd ma mu tedd mi ba léegi ñu ngi tedd ba tey Cheikh Seydi Hadj Malick Cheikh Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu nee na daal nee na daal kaddu yi kaddu yi li muy jib jib luñ ko jibal jibal luñ ko jibal jibal jëf ji jëf ji jekk na rafet na jekk na rafet na taaru na fa tabaarakallah yàlla bu ca tabbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bég na ci nee na amul benn sikk ni sa kontaan na ci lii ndax nee na lii dafay dugg. dafay dugg. ci axadis yu bëri yoo xam ne ci axadis yu bëri yoo xam ni. aba axadis ay ay ayat qur'ani yu bëri yoo. xam ne wala boog ayat tàmbalee ko ci ayat qur'ani yu bëri yoo xam ni. yàlla borom bi. borom bi. digle na ko santaane ko. digle na lii santaane na lii. suñu sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. suñu sang bu tedd bi moom it sallallahu alayhi wa sallam. ñëw wax ko ci axadis. ñëw fed ñëw feddli ko ci ay axadis. na na yu joge ci moom yu wér. yoo xam ne bu jaam bëggee jagal xam ni jaam boo xamante ni bii bëgg nga jagal sa yiwal sa doxu àdduna ak laaxira soo ca jaaree boo ca jaaree. sa lépp yàlla mën na koo yéwénal tey ak ëllëg nag yàlla na yàlla yéwénal suñu lépp ci biir ak ci biti Cheikh Mouhamadul Muntaqa al Bachir Al Khalifa nee na Cheikh eh, sëriñam ak sang sangam Cheikh Mouhamadul Moustapha Muntaqa Bachir. nee na nee na suñu sëriñ suñu kilifa di Cheikh Mouhamadul Muntaqa al Bachir. nee di suñu soppe. cofeel goo xam ne incha allah du dañ goo xamante ni bi yàlla def na ko te du dañ mukk. ndax yàlla téyel boppam cofeel googu di ko saytu. tegal na ko ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu mu mu dugg guddante ko ak suñu maam yu tedd yooyu ay boroomi leer lañu yoo xam ni leer comme ni mu ko waxe woon sànq li nga xam ni kenn mënu ko séddale ndax leeru yàlla moo bindoo noonu te yàlla gërëm na leen ba pare la leen nam la leen yàlla namal ci yiw nag yàlla defal ci la leen yàlla defal ci yiw nag loola yëpp ma ngay daje nag ci loxol sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen koy joxal boppam ca barzax incha allahu taala ñu def ko nag ci seen téere yiw di ko soobe fi mu toll nag mu ay leer ay ngërëm ay cant ci seeni njaboot njabootu biir ak njabootu biti. njabootu deret ak njabootu pas-pas. yàlla bu yàlla dañ rek. yàlla bu yàlla dañ rek. di ñu def. njabootu deret ak njabootu pas-pas. ñu am seen ngërëm. ñu am seen ngërëm. nee na am na ñoo xam ne ku am seen ngërëm am nga ngërëmul borom bi. bu demee ci ñoom. bu sa allahuma demee ci ñoom. wala jëf ju rafet. wala sa jëf ju rafet. nga ñaan ñu bind ko nga ñaan ñu bind ko ci seen seeni téere. yàlla dalay wan ne. yàlla dalay wan ni. da ngay wan ne fari nga. dalay wan ne da wane ni fari nga. bëgg nga sama jaam bi nga sama jaam bi. ma gërëm nag ba noppi. man yàlla maa leen gën a nekk fari foofu. daal di la dottil ay xéewal nag. yoo xam ni amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem. yàlla nañ ko yàlla defal amin ngeen baal ñu nee nee na bu toppee mbégte mi rek bu toppee mbégte mi mën naa wax ba suba. te te nag xam nañu ni tey yi. yitte yi ak responsabilité yi yaatu na.